new generation bi boo leen wax ne leen grand yi ñoo leen gën a feebar ñoo leen gën a crazy yëpp leen talent duñ ko mën a gëm tu vois parce que ñoom lu ñu ko fe fekkee ñu grand yi quoi tu vois day mel ni rek comme da koy comprendre quoi ko xam ni Balla Gaye la yem moo ngaa kan mbéy géyee daa xoon bëri wala tubaabu joor du mën a dugg ci boppam quoi mais ñun ñu am sensu ñam grand yi booy xam nañ ne xool yàpp a photo quoi même en matière de star je te dis Fada Freddy bu Fada Freddy mu ñëw quoi parce que Fada Freddy moom jigéen ñëpp Fada Freddy la bëggoon li Thione am si Dirianke yi bëgg ko Fada Freddy moo doon seen chouchou Fada danaan freestyle acapella nii bu neexalee nii benn deux benn deux son loolu ay dib amuñu ko amuñu ko amuñu ko Fada Freddy bu du dóor fenn te amul loolu noonu jigéen ñi dañuy xëm di jooy ngir moom déggati pareil Fada et déggati ñoo doon chouchou ay vrai star laa la wax ñun dañ daan dem ci marché yi di dem di jënd ay photo photo yi xam nga boobu internet amul quoi ba affaire noonu boobu photo la daan dem jënd photo yi taf ko suñuy néeg di rêve di gis ay dëggati bu ñu daan ñëw fas koo da leen xool dëggati tey yan daala lay sol faado lu muy def alaaji maan lu muy indi tu vois ils ont fait te boobu dañ daan mandi hip hop fas koo Ablaye Sadji da ngay am Bamba ji Fall daara ji am Pifroes am kii solkatu toile yi man ay mool yu dem géej am BMG 44 am ay Black Cayman Black System non saa ñun foog ñu dégg rap gars yi daan ñëw te ku ñëw day gën a aay you know what I'm loolu moo doon concert quoi mais Fada Freddy vrai star déggati vrai star concert Pibes Sorano dama ko daan koj bu ñu ko daan non loolu leneen la ah no mais loolu amatul billaahi amatul ah Kulu Koksis xumaan xumaan mi ngeen di gis nii vrai star Kulu Koksis mu koy jël gis Saint-Louis ñu naka doon xoolee mu sol ay Nike gris métallisé non mais c'était extraordinaire ñu gars yi dama daan xool ma ne kuy comme footballeur bu gis Messi wala benn Sadio Mané de vrai star loolu amatul léegi ci rab bi rab bi léegi amatul ay star dafa manqué ay star tu te amul